Mor Diouf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Mor nga nekk vice-coordonnateur bu collectif interministériel des agents de l'administration euh, sénégalaise temps yi nag ngay nekk en mouvement d'humeur lan moo ko waxal exactement ci yaatal. waaw ci gàttal li waral euh, ñu yëngu muy collectif boobu xam ne dafa ëmb fukki ministère ak juróom-ñett. Euh, démb dañu daje fële ca CNTS jàkkaarloog bi pour waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moo xew li xew nag du dara mooy ñun ñëpp liggéeykatu nguur gi ñu ñuy xayma ci cent soixante dix mille nguur gi jaboote ñu maanaam la fonction le ministère de la fonction publique jaboote ñu ci biir loolu mu am. cent quarante mille yoo xamante ni jël nañ leen jox leen lu ñuy wax ndàmpaayu dëkkuwaay ndax tey comme niñ ko liggéey liggéeykat bu nekk dafa yell ci mu am dëkkuwaay looloo tax gouvernement bi comprendre lool di leen jox li ñuy wax ndàmpaayu dëkkuwaay waaye liñ ci jaaxal mooy comme ñun ñëpp ñoo war a yem te ñun lañ war a tollale kon waruñoo beddi euh, trente mille muy juróom benn junni yoo xamante ne dañ leen a beddi ci indemnité de logement boobu looloo tax nag ñu ni loolu jëkkul jaaduwul te du yoon ndaxte ñun ñëpp ay fonctionnaire de l'état lañ kon ni ko police bi war a am indemnité de te muy lu jaadu magistrat bi war koo am te ñu tamit lu jaadu jàngalekat bi war ko am dañoo jàpp ni ñun tamit ki liggéey agriculture wala pêche wala tourisme wala sport kooku yot tamit yelloo na am ndàmpaayu dëkkuwaay looloo tax démb nag ñu tenir point de presse boobu pour wax askan bi wax ak gouvernement du Sénégal tamit xamal leen ni am na ay liggéeykat yoo xamante ni ñu ngi leen di teg loo xamante ni ñu ngi koy woowe boddi maanaam discrimination ci wàllu indemnité de logement ci gàttal loolu moo nekkoon daje bi démb euh, yokk ci tamit mm. am na lu ñuy wax prime de euh, de de de bu président de la république waxoon ni yokkal nañu ko chauffeur yi ndax tamit lu jaadu waaye booba léegi tamit France daal di xedeel euh, euh, chauffeur yi ba tey gisuñu loolu leneen liñ ci taftal démb mooy mbirum contrat yi nga xamante ne li ñu wax les contractuels mooy ñi nga xamante ni état daf leen di jël di leen signal ay contrat de deux ans di ko renouveler ñu gis ci nag loo xamante ni dafa doy waar ndaxte am na ñoo xamante ni dañu nekk ay contractuel pendant dix huit ans wala vingt ans te loolu yoonu Sénégal ci boobam moo ko njëkk a dàq ndaxte ñëpp xam nañ ni code du travail ak le statut général de de la de de fonctionnaire yooyu texte yooyu yëpp nanguwul ñuy jël benn travailleur di ko def ci situation de précarité donc ci gàttal démb loolu lañ daje woon pour yége ko askan wi. pour wane suñu naqar pour wane ñàkk ànd bi ñàkk ànd ci loolu ñuy teg pour wax tamit état du Sénégal que ni dinañ taxaw ba loolu dakk mhm. euh, kon nag euh, gannaaw ba ngeen dénoncé mbir yooyu yëpp euh, ban plan d'action ngeen teg ngir rek li ngeen bëgg état bi mën leen ko defal nal ngeen fa yéenee def. waaw li ñu bëgg a def li ci njëkk mooy waxtaan ak suñuy ñoñ te loolu tàmbale nañ ko tey. dem ci ministère yi nga xamante ni yëpp suñuy ñoñ maanaam liggéeykat yi ña fa leeral leen li nga xam ni moo tax ñun syndicaliste ñu taxaw ba mu leer seen bopp ndaxte bala nga ni naam ne fa mooy sensibiliser leen wax leen tamit ban taxawaay lañ war a am bu ñu bëggee jàmmaarloo ak état du Sénégal ba mu jox ñu suñu ak ak suñu yelleef euh, wax leen également li nga xamante ni Euh, euh, lu am solo la maanaam wax leen fi ñu jëm maanaam plan d'action bi ñu leeral leen ko pour ñu waajal seen bopp buñ ci jógee altine bi ñu jëm bu neexee yàlla dinañ takk ay morso yu xonk ñu koy wax brassard rouge pour képp ku ñëw ci administration moo xam usager nga moo xam acteur de développement nga moo xam bailleur de fonds nga boo ñëwee nga fekk ñu tàkk ay morceaux yu xonk nga xam ne ñii kat seen xol neexul am na lu leen naqari am na tamit lu ñuy ñaxtu mu doon message boo xamante ne dinañ ko envoyé képp kuy sénégalais ak képp kuy autorité bu ñu ci jigee dinañ def tamit le 23 bu neexee yàlla benn marche maanaam doxu ñaxtu boo xamante ni dinañ woo bépp liggéeykat boo xamante ni lii ñuy dund naqari na la nga di ko dund. wala sax nga doon sympathisant xëy na sax yow am nga indemnité de logement wala liñ la teg liñ ñu teg neexu la nga ñëw jàppaleñ ci marche boobu pour ñu wan ci mbeddi ndakaaru yi wan askan wi yëpp wan gouvernement bi ni lii ñuy teg kat jekkul jaaduwul te dafa war a dakk bu ñu ci jógee bu ñu defee loolu yëpp nag te gouvernement bi réagirul waxalum ñun faalewuñu danañ yegg ci xàppati ñaari fani grève maanaam dakkal liggéey ci administration ci lu jëm ci fukki ministère ak juróom-ñett yooyu pour wane nag ni gouvernement bi dañoo pare pour xeex ak moom pour que mu jox ñu suñu àq ak suñu yelleef loolu daal ci gàttal moom la ñu tënk dëggal ko teg ko suñu kanam. Hmm. est-ce que Mor aussi si revendication yëpp ak seen plan d'action jot ngeen euh, informer interpeller euh, autorités compétentes yi ñi nga xam ni ñoo war a taxaw si seen i jafe-jafe. waaw loolu def nañ ko ndaxte ñun dañoo gëm ni réew mi lépp loo fi gis waxtaan moo ci jiitu ñun du ñu jug rek di yuuxu waxtaan nañ te waxtaan lañu gëm ndaxte dañoo gëm ni lépp ci waxtaan lay sottee looloo tax waxtaan nañ ci ak le ministre de la fonction publique parce que jébal nañ ko ba daaxal le haut conseil du dialogue social madame Innocence Ntap jiite ko moom tamit waxtaan nañu ak ak moom euh, recevoir nañu sax ñu ko ci remercier bu baax a baax a baax waxtaan nañ tamit ak le ministre des finances et du moom sax recevoir nañu ci ci bureau waxtaan wu yaatu ñu ko ci tamit remercier ndaxte loolu lu foor la ci ñun ba mu xamaloon nañ deux mille vingt trois kat budget yi bouclé nañ ko te kenn jëlu ci en charge indemnité logement waaye am nañ yaakaar ni par rapport ak pétrole bi ñëw ak perspective yi en deux mille vingt quatre war nañoo mën a am indemnité de logement waaye liñ ci jaaxal nag boobu ba léegi kat amuñu ci benn retour gisuñu ci benn jéego buñ ci def tey comme ni ngeen ko xamee ñu ngi ci waajtaayu defar budget yi Sénégal ci deux mille vingt quatre kon nag xoddiku bala ngaa lakkale dañu toog di xaar ba ñu nas ak a yi defar seeni budget deux mille vingt quatre bu ñu ñëwee deux mille vingt quatre ñu ñu kon kat programme wuñ kon da ngeen di xaaraat looloo tax ñuy yuuxu di alerte kon daal ci gàttal képp koo xamante ni war nga koo yëg war nga koo xam wax nañ la ko leeralal nañ la ko li ñu si jaaxal nag mooy boobu ba léegi amuñu ci benn retour. Mhm. Euh, beneen tamit mbir est-ce que au conseil du dialogue social taxaw na ci seeni jafe-jafe. waaw comme ni ma ko waxee sànq au conseil du dialogue social euh, te suñu jigéen madame Innocence Ntap Ndiaye jiite ko mm, kuréel gu am solo la ndaxte dafay kuréel goo xamante ni dafay gàttandu lépp loo xamante ni euh, conflit la maanaam jàmmarloo ci administration Euh, kon ñëpp d'accord nañ ni kuréel gu am solo la ndaxte euh, jàmmaarlo yi muy conflit di ko gàttalu moo gën bàyyi ba mu ñëw nga ciy jéem a wuti solution euh, li ñu mën a wax nag mooy moom recevoir nañu déglu nañu jël na note te dig nañu ni ki ko war a yëg dana ko yëg muy le président de la république muy le ministre des finances muy le ministre de la fonction publique kon loolu ñun dañu koy rafetlu ndaxte euh, moom foofu la mën a yem ñëpp xam nañ ni lépp lu jëm ci wàllu indemnité muy ndàmpaay euh, bu ñu koy wax euh, ñett ñi ñoo ci am solo muy le président de la république moom mi nga xamante ni mooy joxe ndigal li muy le ministre des finances mi nga xamante ni moo yor gafak réew mi ak le ministre de la fonction publique bi nga xamante ne ñun moom la ñuy liggéeyal donc euh, au conseil du dialogue social kuréel gu am solo la waaye nag ay sañ-sañam dafa am ku mu yem ci ni ko yoon tëgge Mhm. Euh, beneen tamit euh, mbir boo xam ne gis nañ ko mooy actuellement front sociale bi am pratiquement euh, mouvement syndical yi si yëpp ah, dañu nekk en mouvement d'humeur naka nga gisee mbir moomu la yëngu-yëngal bi am actuellement à trois mois de l'élection présidentielle. waaw front social bi malheureusement yëngu na lool ndaxte gis nañ université. Euh, muy SAES ñu ngi nii ëpp wuñ ñu ngi waaj a gis nañ tamit euh, les collectivités territoriales gis nañ jàngalekat yi maanaam daal ci gàttal front sociale bi yëngu na te fi mu yëngoon nag du fu baax ndaxte ñu ngi dëgmal élection présidentielle ñu war a tànn njiitum réew mi li nga xamante ni moo war a jiite réew mi fii ak juróomi en deux vingt quatre kon loolu xam nañ ni nekkul lu baax ci réew waaye nag gouvernement du Sénégal moom moo am responsabilité pour woote ay waxtaan woote ay ndaje pour que ñi nga xamante ni dañuy ñaxtu ñu déglu leen ba xam lan mooy seeni ñaxtu euh, xool liñ ci mën a def léegi léegi léegi ñu def ko. li nga xamante ni mën nañ koo def deux mille vingt quatre ñu def ko deux mille vingt quatre li ñu mën a def deux mille vingt cinq loolu yëpp ci waxtaan lay tukkee waaye bu fekkente ni da ngaa tëj say bunt nag ah nit ñi bu ñu amul pexe li ñu mën a def rek mooy euh, li leen yoon may maanaam ay marche ay grève ay takk ay morsoy xonk te loolu nekkul lu gën ci réew mi ndaxte xam nañ ni tension politique mënta ànd ak tension sociale ak tension économique tamit. muy cherté de la vie donc loolu yëpp boo ko boolee dafay nekk euh, lu doy waar ci réew mu mel ni réewum Sénégal ñëpp xam ni du réew mu am doole kon li ñu ñaan ñun en tant que acteur syndical mooy ni gouvernement bi mu déglu ñi nga xamante ni yëkkati nañ ay ñaxtu decc ko ci askan wi wax ko loolu daal lañ ci ñaan ñu ñaan yàlla tamit fii ak euh, ñuy jëm élection yi tension sociale bi calmé wu ndaxte gëm ni tamit euh, le gouvernement du Sénégal dina ci sàkk ay pexe. voilà dernière question euh, Mor en tant que euh, fonctionnaire naka nga gisee cherte de la vie bi nga xam ne actuellement euh, sénégalais yëpp ñu ngi koy dénoncer muy dund gi denrée yi muy facture ndox yeeg courant bi naka nga koo gisee. waaw ah, loolu nag moom dañ koy dund comme ni ko Sénégalais yëpp di ko dundee di ko dund en tant que père de famille mère de famille di ko en tant que travailleur ndaxte ñëpp xam nañ ni bu dund gi seere ci ñëpp lay metti ndaxte ñun ñëpp dañuy joxe dépense yori njaboot di fay courant di fay ndox kon bu courant bi yokkee ni mu yokkee te ñu gis nii tontu yi ci waa Sénégal bi joxe yëpp nekkul ay tont yu wér ndox mi jaare fa yokk ba pare facture yi gaaw Euh, marso bi tamit loo laal mu seer jigéen ñi xam nañ ko loolu lu lu métti la ndaxte gëm nañ ni également boo seetloo le président de la ñu koy saluer jëloon na ay mesures def ay yokkute ci payooru liggéeykat yi waaye yokkute googu yëpp dafa mel ni dañ ko bëgg a jëlaat ci yokkute bi ñu indi ci dund gi dafa mel ni luñ la joxee ci loxo ndejoor moom la ñu bële jóge jële ci loxo càmmoñ donc loolu lu méttee métti la ci askan bi te gouvernement di Sénégal daf ci war a wut ay pexe ndaxte ñoom la ñu fal pour que bu sénégalais yi amee ay jafe-jafe ñu wut ci ay pexe te ñëpp xam nañ Sénégal dafa bëri ay góor góorgóorlu euh, bu fekkee ne ñun ñi nga xamante ne yàlla dimbali nañu ñu am liggéey di ku weer wu dee ñoo ami jafe-jafe sàkkantumaak nag ñi nga xamante ni dañuy taaba taaba ay góorgóorlu lañu donc vie bi lu métti la te dañuy ñaan syndicat yi jaarle ko ci centrale yi ñoo xam seen mission la ñu jub ci taxaw ci pour que gouvernement du Sénégal indi ci ay ay ay pexe ndaxte les Sénégalais. n'en peuvent ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci nangoo tontu bi nga nangoo tontu suñuy laaj. voilà Mor Diouf ñuy fàttali ni yow yaay vice coordonnateur bu collectif inter interministériel des agents de l'administration sénégalaise.